cant ngërëm laa ci jàmbaar ja jaaxal ku rabbana ci cant ngërëm laa di doorem nuyoo ci jàmbaar ja jaaxal ku rabbana këjël mustawa def mu gën ci mindeef tofal bamba xaadim mafal seexuna su duniyaa defoon kër gu ñàkkul solo dalay féetewoo def la ko mbaatina te ab nopp déggul ku yor aw meloom ci penkoo ci sowwu te li yàgg na ku yor gët yu muy xool keneen koo yamal amaana bu gisul sul mbir yeete na sëriñ bamba moo yor melow mustawa nga yor aw meloom mbàkke moom jiitu na sëriñ bamba moo yor melow mustafa nga yor aw meloom mbakke moom jiitu na danga duy ba géejël ci géej yi ya buur yàlla jox mustafa yàgg na di anwaar di asraar sëriñ bee matal mbiram barkeel jëfam àtte na karaama xar baax ya seex bamba yor nga feeñaale duniya sa mbir na ba muy feeñ fa njaarim yamook bal sasin lal islaam ne waaw kay mbiram yeete na ba muy feeñ fa njaarim yamook bal sasin lal islaam ne waaw kay ganam yegsi na sëriñ baa ko tànnal turam wi yor mu doy sëkk xar baax mbiram biiru na mu doy loo boroomam te def tiliteem ci biir ak ci biti kudul rabbana mu jox ay mbiram yëpp xaadimu rasul ba faf nekk xaadim kamal seexu na dëggal yàlla wéetal ko jox koy mbiram di jaamub boroomam kasaa seexu na jëfam ji ci lislaam juréy màgg la mbégum gaa yu baax yépp moom jàll na yonen baaki ki saabaam danañ bég ci moom ndemoo tontu seen jëf jasaa rabbuna muridun sadiqun li seexil xadim mi yeesal ngirum mustawaam rabbuna ba muy door la jël ngir ma dox daa di dem bajaayu njureelam fayoo baatina cërub sayiram ak cërub baatinam mu boole ki koomam jëfal seexuna xadimun xadimim ni xadimu rasul sëriñ abdulaat mbakke moom wàcc na xadimun xadimum ni xadimu rasul sëriñ abdulaat mbakke moom wàcc na li seytaane bon bon te di yàqkat falay romb say jëf asal naagu bu jant fenke ku dib sàccu toog te naa fiq yéefër wallaay jekki naa ku daw wuy ji saboote moom raw na tey ku diingat lu tuut tuut mbiram yàqu naa nde mbooleem li ngay digle ngir yàlla la li ngay aaye mooy lor ku bañ gaañu ngir yàlla la li ngay aaye mooy lor ku bañ gaañu naa sëriñ baa ko mandal ca baarul ulaam musut jëppon lim gisoon ngeen xanaa bu daa wax da cay waar ña jeel fànni xam ni bu jàngul gisoon ngeen xanaa ba mbooleem jullit ñaa ngi jàppi waxam mu leen cay defar ay waxam yeete na niteel nit ba muy nit ba xam moo di kan di sellal jëfam ngëb ko jox rabbu naa dangay laaj ña daa gëstu yoon wa gaaya aw mu teg leen ca seen yoon wa moom wàcc na ña daa laaj a kay gëstu fan gaaya aw mu teg leen ca seen yoon wa moom wàcc na ña daa laaj a kay fan bëri ya aw mu teg leen ca seen yoon wa moom wàcc na bu ab xarnu jeexee beneen bay taxaw ca lay teew mu jaddit mbirum rabbuna te buur yàlla moo def ni abdul ahad mu jaddit ci soo daan pexem sotti na bu am ci ba tooye ba gàncax taxaw mu toftal ca ay waame moom rabbuna nde yërmande jaa tax ndoxum taw di root te jaa tax mu ñëw seexu fexeel kon ba yërmande yóbbaale la mu lay romb ngay réccu du càggana tegal aw ñamag ndox setal say loxo dadul ne xareesu xarit iftu naa lu jar deeti wax na gannaaw ay waxam da dootul am gannaaw ay waxam lu jar deeti gis gannaaw ay waxam gannaaw ay waxam ay waxam yegg naa lu jar dee si wax nag dadul nekkati gannaaw ay waxam ay waxam yegg naa lu jar wax nag dedul nekkati gannaaw ay waxam ay waxam yegg naa damay dellu ñaan yàlla ñaan muntaxa mu doon seen ngëneel ak mbegum seexu na li gën cib julit seexiren baatinan defal loola yaa xam dunun seexu naa bu nuy dund yaanu moom tabun dee mu raw fabal mbir yi cig may ba dem ajana bu ñuy dund yaanu moom tabun dee mu raw fabil mbir yi ci moom ba dem ajjana damay xat mu yem fii ni sallim ala nabil musta kon jasa rabbuna addi sëriñ Mbàkke Madina